Abdou Sagne facilitateur alphabétisation ci mbindum braille. waaw centre bi nii moom mooy euh, siège wu MPSAS MPSAS mooy tekki mouvement pour le progrès sociale des aveugles du Sénégal mooy fi nga xam ne moom ngeen ñëw tey moom la moo abrité waale classe bi nga xam ne moom la état bi ubbi ngir. silmaxa yi nga xam ne ñooy jàng ci làkk ci ci ci ci mbindum braay ñuy jàng làkku réew mi moo abrité waale siège mhm. waaw bi ma ubbee tey daal mën nañ koo xayma ci ñetti weer njàng mi ni muy demee itam ci njàngu alphabétisation la comme ni ngeen ko xamee euh, amul benn changement bu ci am xanaa mbind mi moom rek moom moo ci am li nga xam ne moom mooy moom lañu ñu euh, PINEDJA jox di projet bi nga xam moom moo koy suivre loo ci wàllu jàng noonu lañ ko ci defe amul changement bu ci am mbind meeg dictée tey fité yi ak euh, xayma bi ak euh, wàllu grammaire bi lépp le même leçon yi ñuy joxe ci classe yi nga xam ne ñooy bind ak noir ñu yor euh, di bind ak di xool seeni bët leçon yooyu lañuy joxe fii ñi nga xam ne ñooy bind ci wàllu mbindum braille. waa mat nañu fukki nit nag ak juróom li tax mu doon fa fukki nit juróom. mooy dañu ko dañoo xayma ni njàngum euh, alphabétisation yi nga xam ne ñoo yàllu comme day soog a ubbi te jàngal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci cible bi tamit dafa xaw a yeex pour transmettre xam-xam bi moo tax ñu wàcce ko ñu def ba ñëw fii itam mooy dañ leen a tànn ci biir Thiès sañu dëkk ñu jël leen ñu dugal seeni dossier ñu xool leen ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu état bi ñu daat leen boole ak ñun ndax lii commencement la rek commencement la itam naaw ba nga xam ne saxal nañ comme ni meen ko waxee sànq ni mbindum braille léegi mën nañ cee jàng làkki réew mi moo tax état bi def une première rek daal di ubbi classe bu toll noonu. waa jàng bi mi ngi wàlla toll ci juróom-ñeenti weer bu jotee itam état bi nga xam ne moom moo fi ubbi classe bi bu matee moom mooy xam ana nan la ñu war a doxe ak nan lañu ñu war a def ba ba avancer ba commencer ba ba continuer aventure boobu ñun li ñu xam rek li ñu jox comme liggéey moo ñu former leen ci juróom-ñeenti weer yi comme ni ñu formee seen morom bi ndax nii mu ubbee classe yi fii di classe spéciale noonu la ko ubbee ci classe yu baree baree baree bare ci réew mi classe yooyu yëpp nag juróom-ñeenti weer lañu war a jàng après moom mooy décider ci seen soor nan la ka la ñu war a tëdde ak yooyu. waaw jafe-jafe yi day comme euh, niñ ko xamee ci wàllu jafe-jafe cible bii ñu ne moom moom dafa am ay jafe-jafe boppam ba mu doonee classe spéciale rek ca la ñu waroon a xam ni. xaw naa wuute dana xaw a wuute nag doxin ak yeneen classe ndax loo doona dafa spécial wane nga kon ñi bokkul ak neneen ak yeneen yi nga xam ne moom noonu lay doxe jafe-jafe yi mooy ñii ay silmaxa lañ dañuy déplacé wu ñii ci biir dëkk bi lañ jóge ñii jóge parcelle ñii jóge R100 ñii jóge nangam ñii jóg am na sax ñu jóge ba Tiwaawan te wàllu seen wàllu transport ak yooyu yëpp amuñu ko malgré sax ñu ngi débrouillé gis nga yow jamonoy taw nga fi ñëw jamono ji asamaan si neexul mais ñoom ñëpp ñu ci bari fexe nañ ba jéem ba ñëw kon bu ñu amoon ay loo xam ne mën nañ leen a jàppale ci wàllu waruwaay ngir ñu mën di ñëw dana leen euh, arrangé. Ndeye Mati Mbacke hmm, fii bi classe bi ubbee classe bi commencé jàng waaw njàng bi moom vraiment ki ñuy yombalkat bi moom mu ngi koy yombalal bu baax a baax a baax waaye nag. ci kaw loolu dañoo am ay problème ci biir classe yi muy problème de matériel lañu am loolu daal suñu amoon ko ci jàppale daal moom na baax lool. waaw nañ gën a am na am yaakaar. Mhm. man ñun moom suñu jógee fii li ñu bëgg rek mooy comme ni ñu yombalekat bii ni mu ñuy yombalee nii. loolu la ñu bëgg tamit suñu fi jógee ëllëg tamit ñu am ñi amoon am classe yoo xamante ni dañuy def comme yombalkat bi di yombal comme ñëpp waaw. lan ak lan la ñuy def suñu ñëwee dinañ def ay fite mooy dicté daal exemple dinañ lecture tamit ñu jox ñu tamit ay exercice ci biir en même temps waaw.